ah Aliou Cissé tey moom d'accord ak yow ci kàddu yi nga jëmale ci kookee di Assane Diao mi nga xam ne daanaka semaine bi yëpp maa ngi def ci moom vidéo pour ñu jéem ko xëcc sax ngir bolen blende ko juste ndax xam naa xel que ni ki doon dara lay doon ji salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu leen ku ci nekk seen tur ak seen sant la Aliou Cissé wax ci Assane Diao moomee ca la ñuy ñëw indi ci suñu contribution te it sénégalais yëpp gis nañ ne vraiment ñu ngi wax ci mbir moom moomee mu ngi noonee Assane Diao nag malgré yàggul fël ñu gis ko ci euh, football mondial muy tojat et tout mais nag da ngay xool kii xam ne ni kii dafa am avenir te Espagne la tax moom làqu ci ginnaaw cela veut dire que am na lu tax te tubaab moom bu làqu ci ginnaaw dara rek am na lu mu ciy xaar te ñooñu waruñu see jiit nag Assane Diao fii ci Gossas gii la juddoo Sénégal moo seexam bi di Ousseynou Diao ñaar ñëpp ñu nekkoon foofee ca Cadiz di woyal ba kookee di Betis Séville jël Assane Diao moomee muy noonee waaye Assane mën naa ni trois derniers matchs am génn ci Betis Séville di football loo xam ne nii Ndiaye non mais affaire la pat gauche boo xam ne nii beneen affaire la def naa ci moom vidéo defaat defaat defaat tey jii nag Aliou Cissé dafa génn ne Assane moomee mën naa ni dafa sentir ne ne la gën a doon que sénégalais nee na kookee di Assane euh, Espagne xanaa duñ nangu mu gën a doon sénégalais que espagnol nag ñoom ñoo ko formé ak ñoom seen i tout mais euh, Aliou faut pas dire ça Aliou sama sama sama coach maa ngi jégalu nag mais Aliou Assane Diao <coughs> mais bu gënul bu doonul sénégalais lu muy doon Assane Diao gis nañ fi Kalidou Koulibaly moom fee la juddoo France Abdou Diallo juddoo France ñu formé leen France mu màggee France defee fa lépp ñëw football Sénégal. yow loolu rek war na la jox leçon Aliou Assane Diao bu ñëwee football Sénégal wàcc na ko doo ko def uniquement pour ne a ah, am na boo yoo xam ne ñu ngi ci petite catégorie di toj ñoom rek war nañ leen mën a woo avant Assane mais da nga koy léegi football bi lobby la système la moyen la da koy jël juste pour blender ko ëllëg mën na doon ji dara mën nañoo jëriñ ñun. nga xañ ko Espagne comme ñoom nu ñuy xañee ay joueurs yoo xam ñun war nañu ne soxlaa nañ ko kolo ko rek ñu jël ko uniquement pour blender ko. de même que dans d'autres jours yoo xam ne noonu la ñu ko yàqalee mais booy bi da war ne avenir bi bu doonee dara mën nañoo servir Lamine Yamal en plus mu ñëwaat ne booy bi gone la 18 17 ans la am te 18 ans la am sax euh, bu mu bu mu bu mu dépassé limites yi na def góorgóorlu nànk nànk évoluer mu ngi noonee. mais Lamine Yamal ñaataat la am du 16 ans la am non mais tamit Aliou. Aliou nag football dafa avancé gone yi léegi amul ay kii ñii la am li am de da ngay gis gone gu ndaw jàpp moroomu baayam moroomu papam ngeen baal ma ci kàddu yi di ko dëpp dippi di ko toroxal ci biir tere terrain nga xam ne ni ñii amul pa amul mère amul lu mënti doon ñoom football lañ leen indee moom la ñuy def football benn bal la de bal la ak terrain bi terrain bi même terrain la même taxawaay la booy lekk ñëpp am doole booy ñëpp am expérience léegi da ngay gis nit ko am 18 ans mooy maanaam ci li nga nekk nga am ci maîtrise loolu expérience gars yi nag dañuy juum si expérience dañuy foog ne expérience faa nga am 30 ans 35 ans noonu lañ avancé si yeneen domaines yi loolu faaw ku ci jamono ji bàyyi ci xel moo tax ay Guardiola ñoom seen ci loolu lañ conscient ñoom li man gën a neex ñoom maanaam ñoom dañu ànd ak monde bi dañuy ànd ak temps bi li temps bi di laaj ñoom la ñuy àndal maanaam duñ monde classique monde passé bi non non ñoom fu monde bi ñëw fa la ñuy ànd ak moom di doxantoog moom nànk-nànk mu gën a xam li xew ni jamono ji amee euh, rapidité ci technologie bi am maîtrise technologie bi ci yeneen domaine tamit noonu lañ ciy gaaw a amee maîtrise loolu faa ñu bàyyi ci xel assan nag du ma ne force dafa waroon ñëw mais uniquement pour ñu blende blende ko xaw ma nag xam ngeen li bu baax a baax ma leen xaar ci commentaire nag d'accord ngeen ci kàddu yi ou pas uniquement pour ñu blende ko pour ëllëg bu doonee dara Espagne bañ ko jiitu ñun actuellement woo nañ ko ci équipe Espagne U21 bi mu ngi yéeg ay pa pa pa nànk-nànk te da lay ca aaba la jëm mu ngi noonu jàmm ci yéen gars maa ngi jégalu nag c'était juste contribution la pour football Sénégal gën a avancer et tout jàmm ci yéen Aliou ba beneen yoon ci yeneen i contribution bàyyi ci xel bu baax a baax moo grand. Fassane eh, eh. sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif eh. xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien ñoo far kontaan na wallaay ndeysaan ñoo far avec mon grand Diouf mais bëgg nañ ci waa mais Bamara lan nga wax. walaay daal la nga koy jox.

معبدا ngeen ñaanal ay Sinwaa. ngeen mokkal alxuraan tey jii moom mokkal alxuraan moom seen yaay nañu kontaan vraiment. loolu mooy leen bu baax a baax. yaatu macha allah. ñaanal yàlla ay Sinwaa. def leen ay bëccëg yal na yàlla fay leen dégg ngeen yal na yàlla fay leen ci way yi ak jàng alquran